dal leen ak jàmm ci Leral TV Leral point net tey jii ñu ngi daal di xëy ci xëtëb gu njëkk après la fermeture de l'hôpital Le Dantec quel sort réservé aux malades et du pavillon spécial naka noona ñu mën a xam ne rek daal li nga xamante ne moom mooy hôpital gi nga xamante ne daal dinañ ko tëj muy Le Dantec mii gannaaw le 15 lañ ko daal di tëj loolu nag daal mu nekk li nga xamante ne daanaka neexul ñëpp waaye ab décision gi nga xamante ne daanaka jël nañ ko ba tax na rek daal li nga xamante ne moom mooy ñu fay daal liggéey moom meloon nañ ba futt ba tax na sax daal amaloon nañ ab jàpp marche ba ñenn ñi sax daal jàppoo nañ leen ci officiellement rek hôpital artistique Dantec mii nga xamante ne daanaka tëj nañ ko le 15 août xam ne rek daal yenn mesures ñi nga xamante ñoom nekk rek daal ci pavillon spécial ne rek daal ñu seq mbir ma àddu nañ ci waaye ñi nga xamante ne rek ñoom nekk rek daal ci pavillon spécial bi surtout dédié à la maison d'arrêt et de correction ñoom nag daal seen bâtiment gilée kenn du ko yàq waaye tamit ñi nga xamante ñoom ñooy ay malades fa daal di woon nekk nekk rek dañ leen di daal di orienté waat ci yeneen service hôpitaux yi nga xamante ne di ciblé bu ñu sukkandikoo ci immédiat naka noona mu nekk rek daal li nga xamante ne ñu gën a bëri ba tax na directeur gi itamit àdduna ca mu li directeur de l'hôpital artistique Don Teck moom ni kat daal àdduna ca ba tax na wax na rek li nga xamante ne moom mooy ministre gi maanaam jëwriñ gi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram mooy ministre de la santé et de rek daal bi ñu daal di publier li nga xamante ne moom mooy plaidoyer a wér-gu-yaram ay docteur wala sax daal ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay professeur université kenn addu ci mbirub njaayeb jënd bi ndaxte ba tey jii ay kaddu yi nga xamante ñoom ñii kenn sax déggul a léexee ci ca buun ñun ñoom nag daal dañoo sonn ci ni ni mel ba tax na ñoom ci seen bopp nee nañ toog nañ ay weer amuñu ab ndox wala sax daal ndox dafay raar bu baax a baax ci quartier gile ñuy daal di xam ne rek daal ndox kat doom bu góor la fa ba tax na rek daal dañ koy daal di bëgg te duñ ko am bu ñu sukkandikoo ci bés bile nee nañ ñoom ci seen bopp depuis rek daal seen o daal di installé wu ba tey jii ndox niñ ko daan amee amuñu ko ba tax na ñoom ñëpp dañoo futtu ba mer daal di génn rek daal ci mbedd mi lee ngir wone seen naqar gile waaye tamit ñu ànd ci ak kilifa ci mel ni ay yeeg délégué ak ñëpp rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo séq mbir ma maanaam ñoom nag ci seen bopp nee li nga xamante moom mooy seen eau gi mu daal di ñëwee installé ba tey ji seen robinet yi ngir mu am ndox c'est problème benn benn mooy daal jug deux heures du matin ngir root te loolu sax daal quelques bouteilles rek ngay am te loolu metti na lool ba tax na dara changé wul ci li nga xamante ne moom mooy facture courant yi nga xamante ne dañ ko daan di fay loolu nag mu doon lu leen metti lool naam mënuñ ci dara waaye lu ñu daal di mën rek mooy xamante ne moom mooy seen naqar dañ sax naam ndox mi daal bu ñëwul woon sax waaye facture gi gom ci daal di feeñ ndax bii passé donc fay na ci lu ëpp ci cinquante mille facture te loolu sax du yoon te itamit rootul loolu moom xam na loolu ba tax na facture cher na lool te ñoom nii ba tey ji àdduwuñ yenn askan yi nga xamante ne daanaka génn nañ lu ci mel ni soxna Aminata Gueye Sall moom mi nee li nga xamante ne moom mooy situation gii metti na lool ndax ñoom waa yëmbal buun dépassé naan ak ni ni mel am nañ ay njaboot yi nga xamante ni itamit soxla nañ ko kon nag nit mën naa manqué lu ne ba mu des ndox te te loolu rek daal ñu saafaraal leen nu mu gën a ba tax rek daal ci ngir def ci a a ci xëtëb gu njëkk ci du rek daal ci lu lëmbe réew mi ay sextape ak ni mel góor jigéen gu ñe gàñ fii ci réew mi naka noonu rek daal yéen kaay gi daal di xëy fële ca unité 17 bu Parcelles Assainies acte de contre nature bi nga xamante ne es Diouf mi ak partenaire am gi di Ngueye ñoom nag daal la ñu daal di bett rek daal ci seen néeg muy ñaari góor yuy daal di def rek daal mbirub góor jigéen naka noona ñu daal di xam ne rek daal mbir mi kat daal parcelle la daal di xewee naka noona ñoom ci seeni bopp ci néeg gi ñu daal di woon nekk bu ñu sukkandiku ci libération gi les dëkkandoo yi kat daal ñoo dégg rek daal ay onk yuy jóge rek daal ca néegu juuf mile gannaaw loolu rek daal ñu daal di wootante waaye giñ fa daal di demee rek daal bett leen fa ñu bëgg daw waaye ki nga xamante ne moom mooy Diouf mi dañ ko daal di jàpp rek daal mu daal di xam ne jëf yilee moo ko daal di def ba tax na rek daal wax na li nga xamante ne moom mooy mafia gi mu daal di bokk ba tax na ñoom ñaar ñii jàpp nañ leen waaye li nga xamante ne rek daal moom mooy quartier gilee doy na wax bu baax a baax ba tax na enquête gi nga xamante ne def nañ ko ci rek daal ci néegam gilee ay préservatif lañ fa daal di gis ak ay lubrifiant li nga xamante ne moom mooy maquillage ay perruque si néegu Diouf mi lañ ko daal di fekk mu nekk lu doy waar lool ba tax na ci fan yi njàlle ci 15 août gi nga xamante ne daanaka ca place Bessiaou gile ak ca Mbour ba tey jii ñu ngi fii ci li nga xamante ne moom mooy sextape yi xale yi lu ne la ñuy def ci réew mi le mu nekk rek daal dëkk bu yéeme lool ba tax na foog rek daal ñu sangat gaal gile balaa muy suuxandi ci boppam ba tey rek daal ci xëtëb gu njëkk ci leeral point net ñu àddu rek daal ci ay soldats euh, mi Macky Sall gi Bamako ngir waxtaani rek daal lu am solo lim fa daal di jëlee waaye tamit bokk na ci rek daal ci libéré ñi nga xamante ne ñoom ne ay jàmbaare fa daal di nekk ba tax na ñu daal di xam ne rek daal ni ni mel daal am na solo bu baax a baax surtout ci mbirub géopolitique waaye tamit ci diplomatique bi nga xamante ne njiitu réew mi wane na ko ci ay axe yu bëri daal di waxtaan ak gannaaw daal gi mu daal di demee fële ca Mali li ci gën a am solo muy mbirub économie maanaam rek daal mbirub euh, koom-koom gilee waaye tamit lépp daal lu ñeel mbirub relation ndax rek daal Mali mën a retrouver li nga xamante ne moom mooy place am ci àdduna gile waaye tamit ci Sénégal gile waaye lu gën solo ci loola muy rek daal libération ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay solda yu daal di woon rek daal dem en ba tax na ñoom seen mission kat jeexoon na depuis avril waaye gannaaw rek gi ñu daal di embargo we ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa moo tax mënuñu fa woon génn naka noonu rek daal embargo googu giñ ko daal di jëkkatee nguur gi rek daal daal di ci def ay jéego ba tax na Macky Sall daal di fa dem waxtaan ak ñoom waaye tamit fu mu nii ñu daal di xam le ci lu tolloon rek daal ci 3500 soldats ak policiers jàppoon nañ leen fa waaye tamit ñun ci suñuy jàmbaar ñu nga xamante naka tey ji rek daal ñibbisi nañ ci seen réew mi lee ñu daal di solo bu baax a baax ci njeexintal gannaaw doomu Sénégal yi gi ñu ñibbisee seen kër ba tey rek daal ci xëtëb gu njëkk ci leeral point ñu àddu rek daal ci li nga xamante ne ay manquement yu ñu di gis rek daal ci yoonu ancien aéroport international gii di Léopold Sédar Senghor naka démb rek daal Sonatel amaloon na rek daal ba jàkkaarloog taskatu xibaar na li ñu daal di manqué rek daal muy yenn sàcc yi nga xamante ne ay kubéeru foos wala sax daal ay rigol yi nga xamante ne yenn kubéer yi dañ koy daal di sàcc feeraayee ko wala sax daal ak jafin ñi ni mel ba tax na rek daal li nga xamante ne lañ gisoon ci vidéo yi yuy dox rek ci yi fan yi naka noonu rek daal Sonatel daal dina ci àddu ba tax na rek daal ñu daal di remplacer bépp manquement bi nga xamante ne rek daal nemmeeku nañ ko dëkki lundi ji ñu jàll muy le 15 naka noonu ñuy daal di xam ne rek daal li nga xamante ne moom mooy yenn càcc ñun daal di nemmeeku waaye tamit yenn kubéer yi nga xamante ne moom mooy ay fosse septique yu nekk ci yoon yi wala sax daal ay yenn rigole yi nga xamante ne ñu koy jaayee feeraay wala yeneen dañ koy daal di sàcc wala ni ni mel ba tax na loolu kat daal doy bu baax a baax loolu lañ daal ba tax na dangerosité gi ci daal di nekk mooy nit mën na daanu ndox bu ñëwee mën na cee ba tax na itamit ndox mi nu mu war a jàllee du jàll di jàll wala sax daal yenn rigole yu daal di fatt ba tax na bu tawee ndox mi nu mu war a demee du ko daal di demee loolu rek ko daal di waral ba tax na Sonatel jël ay décision yu mucc ayib ca loola daal di remplacer rek daal bépp kubéer xamante ne gis nañ ja amu fa ba noppi itamit di di dénoncer ni ba tax na wax nañ li tamit nee nañ rek koo xamante ne daal dinañ la gis wala sax daal ñu seen la ci caméra surveillance yi wala ngay daal di jël li nga xamante ne moom bu taxee rek nga xam ne daan bu jéggi dayoo rek daal dana tegu sa ndodd muñ sukkandiku ci yéene kaay gile loolu nag daal ñu daal di ko nemmeeku ci ndakaaru njaayu njar këpp naka noona mu nekk rek daal lu doy waax lu ñu gisoon ab pax ki nga xamante ne gisoon dox na ci ay jéego yoo mucc ayib ba tax na rek daal ku nekk war naa def aajoom fi mu ko waree